mbokku senegal mbacke burum bax dik na ngir jàppalante ak yeen ci jafe-jafe yi ngeen amé jëm ci walu jafe-jafe aduna ak surtout walu ñaan mom sëriñ bi mbacke burum bax dina yëngatu ci walu sét sétu ramlu moma ci doy ngir jafe-jafe yi ngeen am ak li nekk seen kanam ngir ngeen mën ko fank ñu né ndax fofu la yam ñu né déedéet mom mbacke burum bax mi dina yëngatu ci walu listikhar à distance nga xamné du jarati ngay déplacer wu di ñëw jokkol ak mom rek mu défaral lako ci anam gumu gëna yewé né wa inni a'iizuhaa bika wa a mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun rabbi ishrah li sadrii wa yassir li amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahuu qawlii waj'al kalaamii raashidan wa murshidan wa fikratii nawwir wa qalbii arshidaa mbokk yi ni bàyyi xel fu mën a nekk ci àdduna moo xam ñu nekk ci réew wala ñu nekk bitim réew ñoo len di waxati alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginaa biñu ñu santete yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi mbolé mbokk yi ni baye xal ak fu mëna né mbokk yi tay dañu fas dik ak yeen ci benn secret bo xamné examen la képp ko xamné da ngay jang wala ngay def concours wala lu ni mel tay def examen bëgg suñu borom defal la boole la ci boole cañ cañ ngay admet fexel ba def li incha rabbi mo xam examen bu man di doon nak boko ko rek incha allah rabbi sun borom dina na lola bu baax. xanaa bari ñuy sori dañuy wax yow mi nga xamni yoy soko ñew tay top tey topp suñu vidéo bu fekke ne abonné ko ci seen bi nga abonné te bi di bobu partager ko mu gëna ndax vidéo yi ni dugal ci seen bi yépp ay vidéo njëriñ kese la yow mi nga xam ne danga nga bëgg a def lu seet wala listixaar mën nga ñu contacter ci benn ci ñaari numéro yi foo mën di nekk rek des na la defal listixaar ku leer nañ incha allah kon mbokk yi ñu dikk ak yéen ci secret bi nga xam ne moom lañ leen indil tey muy secret bu ama am solo boo jëlee <clears throat> ay bii ñuy wax fa amma man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuhaasabu xisaaban yasira waaye nag wa yanqalibu ila ahlihi masruura moom nii nga ko noonu nga koy binde waaye nag yaa ngi koy bind fukki yoon ak benn onze fois moom nga koy bind fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruuran bind ko ay onze fois yëpp nag mboolem miim yi ci nekk yëpp boo noppee ci loolu nga bind wala saw fa yuxtiika rabbuka fatarda wala saw fa yuxtiika rabbuka fatarda moom nga bind ko fukki yoon ak benn muy onze fois wala saw fa yuxtiika rabbuka fatarda bu ñëwee sa yuxtiika xayin gi moom nga yaatal comme ni nga ko gisee nii rek boo ko yaatalee nga boole ko moom ak fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuhaasabu hisaaban yasiran wa yanqalibu ilaa ahlihi masruuran nga jël sa tur ak sa turu waajur wu jigéen nga dugal ko ci biir miimi fa amma man ya ak yuxtika xayin googu nga dugal ko ci moom it boo noppee lii saafara lay doon waaye nag booy def saafara si na nga jéem fexe ba boole ci big bi ngay defee examen maanaam nga feexe ba dugal ko ci ndox mi nga sangoo ndox mi fajar gi nga xam ne moom nga war a demee defi examen bi incha allahu rabbi lii boo ko defee boo defee examen suñ borom dina jàppandal loola bu baax a bax a baax kon xam naa lii mooy secret bi nga xam ne moom la leen indiloon tey di leen wax na ngeen continuer di abonné tey partage bi mbokk senegal mbacke borom bax di na ngir jàppalante ak ci jafe-jafe yi ngeen amé jëm ci walu jafe-jafe aduna ak surtout walu ñaan mom serigne bi mbacke borom bax dina yëngatu ci walu set setu ramlu moma ci doy ngir jafé jafé yi ngeen am ak li nekk seen kanam ngir ngeen mën ko fank ñu ne ndax fofu la yam ñu ne déedéet mom mbacke borom bax mi dina yëngatu ci walu listikhar à distance nga xamné ne du jarati ngay déplacer wu di ñëw ak mom rek mu défaral lako ci anam gumu gëna gën a ci lu jëm ci walu ndomba mom serigne bi di ci yëngatu moom mbàkke borom baax ndomb yu am solo la leen di jox yu yéeme loola nga xam ne ku ko takk ku ne doo faatu mukk si ndox ah mbokk yi loolu lu am solo la jaaro bayra yi nag ak ubbiku moo ma ci doy moom mbàkke borom baax dina la ci dimbali ndax loolee rek la mëne lu jëm ci wàllu jaaro bayre nga xam ne ci jonn yàlla tey jile dañu koo yittewoo ak ubbeeku ku ne bëgg ngaa ubbeeku ci sa bërëbu liggéeyukaay ak àdduna ba wër sa ganasi la sëy li muy tas bëri na te kër yi yëngu loola ci lu jëm ci wàllu boole jëkkër ak jabar wàllu nopp sëriñ bi moo ma ci doy doy moom borom baax dina la ci dimbali ci anam gu mu yame solo walu tukki nak moma ci doy yeen ñu bëgg walu këyit te mu jafe yeen ñu nekk biti réew am këyit jafe leni itam Mbacké borom baax mii moma ci doy adresse am Ben rek la mi ngi ci Touba Mbacké ko ci 77 684 28 28 wala ci 77 668 28 28 bu dee ci wàllu Gambia gaaw leen gaaw jokkoo moom ci plus 220 238 16 26 ak Mbàkke borom baax mi seen coono jeex na.